kañ la judd maanaam kañ la gane àdduna ak itam ay la moom Seydina Ousseynou ak frère am naa Assane bëgg naa nga nettali ma loolu aussi. jërëjëf yow sama rakk ci laaj bi nga xam ne aussi laaj nga ma ko Seydina Ousseynou nag ak naa Assane ñoom ñaar ay mag ak rakk lañ ñoo ngi magante at ki nga xam ne mooy naa Assane moom moo mag Seydina Ousseynou Seydina Assane mu ngi juddu ci atum ñetteel ci gàddaay gi. Seydina Ousseynou tamit mu ngi judd ci atum ñeenteel ci gàddaay gi ñoom ñaar nag nekkoon nañ moo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leen a bëggoon lool comme ni ma la ko waxee woon ci commencement bi ndax yonent bi bëggoon na leen ba àgg ci bi ñuy nekk tout tànk dana daan na wax aaye bi nga xam ne sunu borom moo ngi wax ne lenn ci seeni doom fitna la ndax ñoom ñaar daan nañ fekk yonent bi lu bari muy julli ñu yéeg ci kawam ba yéeg bi ñu yéeg ci kawam sax daan na seenee saaba yi ndax xutba bi yonent bi daan xutba am na bis sax yonent bi salaahu salaam julli ba noppi di xutba ñoo ñu yéeg ci kawam di bajantu fekk mu guddi lool ànd ak lëndëm waaye ci jamono yooyu benn saaba daal di wax ne te leen a yëbbul seen yaay bi mu waxee loolu asamaan si daal di melax melax gu am doole lool melax goo xam ne dafa bàyyi ak leer leer bi continuer mel ni ab làmp ba saaba bi yëbbu leen ci seen yaay soxna Fatima bañ duggee seen néeg yaay la leer gi door a dem loolu bokk ci seeni karaama yonent bi sallallahu bëggoon na leen ba tuddee woon leen ahlul bayti ahlul bayti nag boo ko déggee mooy sama waa kër yi ba tax na sak fajar bu daan julli gi daan na jaar néeg soxna Fatima gi leen fëgg naan jug leen yéen sama waa kër jug leen yéen sama waa kër moom Ousseynou ak Assane nekkoon ñoo xam ne itam ñu jàmbaare lañ ñoom ñaar itam bi yonent bi di génn àdduna fekk ñu nekk ay tutànk làq nañ moom jamono bi nga xam ne yonent bi sallallahu génn na àdduna ñoom làq nañ gërëm yonent bi yonent bi gërëm na leen waaye fekk boobu ñu nekk tu tànk waaye dañoo jàmbaare woon lool Seydina Ababacar tamit noonu la fonke woon Seydina Ousseynou ak frère am daan na leen teral fonk leen lépp lu baax mu di leen ko defal waaye ànd ak gërëm leen Seydina Omar itam noonu noonu la leen taxaw woon ba Seydina Ousmane ba ci seen papa Seydina Aliou jafe-jafe bi nag bi nga xamee ne yàlla dogal na am na diggante ki nga xam ne mooy Ousseynou ak Assane seen taxawaay ci bi nga xamee ne yàlla dogal na seen papa doon guerre ak Muawiya bi guerre boobu jeexee ba Muawiya nekk xalifa ginnaaw bi seen papa génne àdduna njiir gi nga xam ne Muawiya jiite woon na ko ñëwaat na ba ci loxoy Useyni ba ci loxoy Asan magam waaye bi mu ñëwee ci loxoy Asan Asan dem na ba coow li bari bu bëgg ko dellowaat ki nga xam ne mooy Muawiya delloowaat ko li nga xam ne mooy nguur gi waaye Useynu daal di bañ ndax gis na ne Asan moo ci gën a yey ndax moo gën a teg moo gën a mën a teg nit ñi ci yoon waaye Muawiya moom Xasan euh, moom ak Useynu wuute nañ gis-gis ba taxoon Xasan daan na ko wax ne ko su ma la mënoon a ci bërëb ba li may lijjanti ma lijjanti ko dinaa ko def ci noonu nag Useynu bi mu gisee Xasan dogu gi dogu ci dellowaat nguur gi Muawiya Useynu daal di ciy maandu waxu waxu ci dara loolu nag nekkoon na li nga xam ne doxoon na ci diggante Seydina Xasan ak Useynu ci jamono bi nga xamee ne Muawiya nekk lu nguur nekk na buur maanaam nekk njiitu jullit yi Muawiya nag fonkoon na leen lool ñoom ñaar daan na leen teral aussi ñoom ñaar daan nañ ñëw ci Muawiya Muawiya di leen teral teral gu am solo fonkoon na leen lool jox leen cër ndax jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey tamit Muawiya daan na def sax at jamono bi nga xamee ni moo ngi nekk njiit ci jullit yi at mu jot daan na génn ñaar téeméeri junne ci jamono boobu jox leen ko am na bis sax bi mu leen ko joxee dafa doomu Inde kenn waru leen a jox lu toll nii ku dul man bi nga ko waxee tamit foofa Seydina Ousseyn mu daal di tontu daal di ne ko ñun tamit joxoo ko kenn koo xam ne ku ñu gën la maanaam mënoo ko jox kenn ku ñu gën loolu na doxoon na seen diggante ñoom ñaar mu nekk teraanga joo xam ne doxoon na diggante Muawiya ak Seydina Ousseyn ak Seydina Hasan tey nañ ci ibnu Jarir ak Tabari mu wax ne ku ñuy wax Muxira ibnu sooba nekkoon kenn ci saaba yi. moom nag dafa nekkoon ab ministre ca Kufa maanaam dafa nekkoon ab jaraaf jamono bi nga xamee ne Muawiya mooy président bi Muawiya moo ko fa faloon mu nekk fa jaraaf waaye moom Mughira ibnu Shu'ba boobu dañ ko jaxase woon ak Muawiya ndax liggéey bi muy liggéey dafa jàppandiwul nekkul liggéey bi gënal Muawiya ba taxoon Muawiya dogu woon ci folli ko moom Mughira nag am bis mu siyaare si Muawiya seet si ko comme moom ministre la mu seet président bi bi mu ñëwee di koy seet ba nit ñi wax ko ne ko Muawiya nag dogu na ngir folli la ngir fal ki nga xam ne mooy Shahid ibnu As bi biñ ko waxee loolu nag moom Mughira mu daal di ne dina wut pexe pexe bi nag mooy dafa fexe dem ci doomu Muawiya maanaam doomu président bi ñu koy wax Yazid ibnu Muawiya bi mu demee ci Yazid daal di ne ko saaba yu mag yi dem nañ kenn desatu fi seeni doom ñoo fi des te seeni doom kenn gënu la ci te gën kenn gënu la cee nekk jàmbaar te gën kenn dàqu la cee politique te kenn gënu la cee rafet ab xel ngir téye li nga xam ne mooy lislaam kon lu tee nga déggoo ak sa papa ngir bu xamee ne génn àdduna yow nga wuutu ko maanaam nga nekk chef d'état major nga wuutu sa papa bu génnee àdduna bi mu waxee loolu nag Yasid daal di dem waxtaan ak papaam Muawiya bi mu waxtaan ak papaam papa ji tamit daal di woolu moom mu xeera mi nga xam ne moo ko xelal loolu mu xeera ne ko waaw man maa ko wax loolu parce que gis naa ne ginnaaw naa Ousmane li tuuru ci ay deret dafa bari te xeex ci biir lislaam dafa bari woon loolu yàqu-yàqu yu bari am na fi may ragal sa ginnaaw loolu am léegi lu teye nga jël sa doom ji fal ko ngir boo fi jógee mu wutu la ngir mu nekk làqatukaay ci nit ñi nit ñëpp di daw di làqatu ci moom mu aar lislaam bi loolu lu mën a nekk la teyit bu boobaa ki nga xam ne mooy ibnu siyaad dana la mën a féetee ca fa nga xam ne mooy basra man itamit dinaa la mën a féetee ca fa nga xam ne mooy koofa su boobaa ñu wowoon nit ñi ngir ñu jaayante ak moom boo fi jógee moom mu wutu la bi mu waxee loolu nag ya xam nga nit ak bëgg-bëggam rek ak doomam dañoo jege Muawiya daal di d'accord ci loolu hésité sax fa mu ko ko waxee fa la ko daal di waxee ne ko yow mën ngaa delluwaat koo fa ngir nga commencé yëngatu ci mbir moomu ba xam nit ñi danañ jaayante ak yow wala déet te ba muy wax loolu nag dara taxul mu wax ko lu dul ngir bëgg ak palam gën a dëgër comme dañ koy folli moo tax mu wutoon pexe ngir mën a delluwaat ci garaat bi nga xam ne moom lañ ko faloon mooy mu nekk ministre ca koo fa moom mi nga xam ne mooy Muxiira ibnu Soxba ci noonu Muawiya daal di ko yónnee ci Abdullahi ibnu Omar daal di koy jox téeméeri junne ci noonu mu daal di bind leetar yónnee ko ci ki nga xam ne mooy Abdurahman ibnu Ababakar te muy taawu Ababakar moom itam mu jox ko téeméeri junne mu yónnee ci Abdullahi ibnu Zubayr jox ko moom itam téeméeri junne Abdullahi ibnu Omar nag moom wax nañ ne bi xaalis bi agsee ci moom bi ko gars yi waxee li nga xam ne mooy Muawiya dafa bëgg bu fi jógee doomam wutu ko Yasid ngir ñu jaayante ak moom. moom Abdullahi ibnu Omar dafa daal di bañ ne Muawiya li mu bëgg mooy dafa bëgg ma jaayee ko sama diina prix bu yomb loolu moom duma ko nangu ci atum ñeent fukk ak juróom-ñeent ci gàddaay gi ci la Muawiya daal di bind leetar ki nga xam ne mais Marwan ibnu Akam Marwan ibnu Akam nag moo nekkoon ministre ca Madina maanaam jamono yooyu moo nekkoon jaraaf ca Madina bi mu ko bindee leetar daal di koy wax ci biir leetar bi ne ko man day mag laa te samay at aussi bari na damay ragal ëllëg ma jugee fi te bàyyiwuma fi kenn ku ma wuutu ak jiwoo daal di am ci lislaam loolu lay ragal te loolu lay daw moo tax maa ngi sàkku ci yow nga woo waa Madina ngir xamal leen ne dama fee bëgg a teg koo xam ne moom mooy wuutu ëllëg su ma fi jógee bi leetar bi ñëwee ci Marwan Marwan tam daal di dajale waa Madina ci atum ñeent fukk ak juróom-ñeent ci gàddaay gi wax leen xabaar boobu ne leen amirul muminina maanaam njiitu jullit yi di président bi moo yónnee leetar bi nee na dafa bëgg mu teg fi koo xam ne moo koy wuutu su fi jógee ngir diine ji mën a taxaw benn gàllankoor bañ fee am ndax loo gis rek faaw njiit rawatina lislaam bi waxee loolu ñëpp daal di rafetlu loolu daal di koy nangu ne ko ñun pare nañ ngir loolu tey tamit bëgg nañ mbir moomu noonu mu nekk mbir moo xam ne da koy bañ a yéexee da koy gaawee daal ngir ñëpp mën a xam kan la fiy teg ngir nit ñi mën koo topp ngir diine ji lépp mën a tegu ci yoon. ci noonu Marwan daal di bind leetar boobu moom itam daal di koy yónnee ki nga xam ne mooy Muawiya ngir xamal ko tont bi nga xam ne waa Madina tontu nañ ko. ci atum juróom fukk nag ci gàddaay gi ci la Muawiya daal di dajale waa Saam ngir ñu jaayante ak ki nga xam ne mooy doomam ngir bu fi jugee mu wuutu ko. waa saam yëpp daal di d'accord ngir jaayante ak moom ndax moom foofu la nekkoon di saam ci jamono yooyu nag ci at moomu ci la Muawiya daal di bindaat beneen leetar yónnee ko ki nga xam ne mooy Marwan ibnu Akam te mooy ministre ca fa nga xam ne mooy Madina bi leetar bi daal di ñëwee ci moom Marwan itam daal di gis ne ki nga xam ne mooy Muawiya li mu bind ci leetar bi mooy waa Madina yëpp jaayante ak doomam ngir bu fi wutoo mu bu fi jógee mu wutu ko ci noonu nag Marwan daal di dajale waa Madina yëpp ak kilifa yi nga xam ne ñooy doomu saaba yi te nit ñi topp leen ba mu leen dajalee mu wax leen na leen la ma leen doon wax daaw muy yëbbante bu bàyyeewu ko ci kilifa gu mag ga loolu daal dina koy confirmer ren ndax dogu na ci ngir ngeen jaayante ak ki nga xam ne mooy Yasid di doomam ngir bu fi jógee moom mu wutu leen mu wutu ko daal di nekk kilifa yi jullit yi te loolu muawiya def mooy aaday ñi nga xam ne aaday ki nga xam ne mooy aboubacar ak omar bi marwan waxee loolu ki nga xam ne mooy abdourahman ibnu aboubacar di taawu seydina aboubacar daal di koy tontu ne ko yow juum nga ni nga wax demeewul noonu ndax aboubacar ak omar loolu du seen aada ñoom ñaar defeewul noonu loolu kay aaday perse yi la ak nasraan yi maanaam kisra ak faysal bi mu waxee loolu nag moom itam daal di bañ nga d'accord ak Muawiya ci décision boobu nga xam ne jël na ko ki nga xam ne mooy Seydina Ousseynou moom itam di doomu Seydina Aliyu daal di bañ bañ a d'accord nanguwul ki nga xam ne mooy Abdourahman ibnu Zubayr Abdullahi ibnu Zubayr moom itam daal di bañ ki nga xam ne mooy Abdourahman ibnu Aboubacar ginnaaw bu mu bañee Abdullahi ibnu Omar dal di bañ doomu magi saaba yépp daal di bañ Marwan daal di bind leetar moom itam daal di koy yónnee ki nga xam ne mooy Muawiya daal di koy xamal loolu. ci atum juróom fukk ak benn ci gàddaay gi bi nga xamee ne Muawiya ñëw na Màkka ngir aji bi mu ñëwee ba def ajam ba noppi ba aj ba noppi daal di bind leetar yónnee ko ki nga xam ne mooy Abdullahi Ibn Omar. daal di koy wattandikuloo li nga xam ne mooy xaajale jullit yi maanaam féewale jullit yi daal di koy sant mu benn le jullit yi moo gën mu leen di féewale ci noonu Abdullah ibnu Omar daal di koy bind leetar tontu ko ne ko da xam ne ay xalifa jiitu woon nañ leen fi te xalifa yooyu dañoo am ay doom te sa doom gënul seeni doom kon du ñu ànd ak yow mukk ci ngay jël sa doom di ko teg suñu kaw kon xolaatal bu baax li ngay def ci noonu Muawiya daal di woolu ki nga xam ne mooy Abdurahman ibnu Abubakar di taaw Ababakar bi Abdurahman ñëwee mu daal di koy laaj waaye bi mu commencé wax ak moom Abdourahman daal di koy dagg maanaam daal di dagg wax ji daal di koy dogaale ne ko li ngay wax nii de duma ci musa ànd ak yow benn da ngay jël mbir mi nga teg ko ci suuf nga wutaat beneen xalaat bu bokkul ak teg ci sa doom wala boog soo mënul loolu nga def nga nga li nga bëgg a def nga def ko mu nekk ab ŋàññi ci yow waaye ak ŋàññi ci jullit yi maanaam nekk ak xas daal ci jullit yi bi mu waxee loolu nag daal di jug rek daal di dem toogul sax di fa xaar ci noonu Muawiya ko ba mu yàgg daal di ñaan sunu borom ne yàlla yàlla nga ma fegal ci kii nii ci num la soobee maanaam yàlla nga ma fegal ci aw loram ci num la soobee ne wax nañ ne tegaatuñ ci ay fan rek ki nga xam ne mooy Abdurahman ibnu Abubakar daal di génn àdduna daal di wàcc liggéey ci noonu mu daal di woolu ki nga xam ne mooy Abdullahi ibnu Zubayr bi ko Muawiya wooloo mu ñëw mook mbooloo mi àndal bi mu ñëwee mu ne ko yow moom da mel ni ab njàppaan maanaam ak till goo xam ne da ngay dugg ci pax pax moo dugg génnaat ci duggaat ci beneen pax gars yi luñ dugg yaa leen ci dugal daal koy wax ne ko léegi yow lan mooy sa xalaat ci décision bi nga xam ne jël naa ko ba nga bañ ko mu daal koy tontu ne ko da ngay tànn ci benn ñett yi ma lay bëgg a wax da ngay def ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon wala nga def ni Aboubacar defoon wala nga def ni Omar defoon Muawiya daal ko ñoom nan lañ defoon mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi fi bàyyeekoo bàyyiwu fi kenn ku jullit yi ñoo xool ba Aboubacar doy leen ñu daal koy tànn mu nekk seen jiit Muawiya daal di koy tontu ne ko man bàyyiwumoo fi ku mel ni Aboubacar mu ne ko kon da ngay def ni Seydina Aboubacar defoon ndax moom bi mu fiy jógee dafa tànn kenn ci waa Xuraysi koo xam ne sori na ko loolu ci ak mbokk maanaam bokkul ak moom dara maanaam ab jàmbur la ci moom mu daal di koy tabbu def ko njiit ngir bu fi jógee waaye jëlul doomam rek daal di ko fiy teg. wala itam bu la neexee nga def ni Seydina Omar defoon ndax moom bi mu fiy jógee dafa tànnoon juróom-benn nit ci waa Xuraysh yi daal di wax ne bu ngeen di tànn njiit tànn leen ko ci juróom-benn yi xool leen ci ku leen ci doy ngeen tànn ko ëllëg su demee ci suñu borom bu ma laajee dinaa xam li ma koy tontu. bi mu waxee loolu ba àggal Muawiya daal di koy tontu ne ko yow lii rek nga ma nga war a tontu laa amoon leen la ma war a tontu loolu lii mu ne ko lii rek laa amoon dama lay tontu Muawiya daal di gëstu ñu ci des daal di leen ne ko waaw moom li mu wax rek lañ wax. ci noonu nag Muawiya daal di wax ak ñoom nag ne leen kilifa bu la avertiree wax ak yow da ngay fonk avertissement bi mu la avertir parce que man yàgg naa leen moytuloo yàgg naa leen wax te lu may dugg damay waxtaan ak yéen waaye seetlu naa ne saa bu may wax ak yéen ci kanamu mbooloo mi ngeen di ma wàññi di ma weddi ci kanamu mbooloo mi léegi nag sës naa te tamit nit dafa war a aar boppam te maa ngi jug ngir wax ay kàddu yoo xam ne su ma ko waxee ku ci teg benn baat ci kanamu mbooloo mi moo xam baatu baatub yokk la wala baatub wàññi baatub dëggal wala baatub weddi sa bakkan a ngi ci xottu gerte te nit dafa war a aar bakkanam ci noonu nag mu daal di sant ki nga xam ne muy njiitu armée bi ne ko mbooloo mi toog nii kilifa yi toog nii ku nekk ñoom nanga indi ñaari soldaar mu sëm ko yor jaas yi su may wax ku ci tontu ab kàddu rek dagg leen boppam ci noonu nag Muawiya daal di yéeg ci kanamu minbar bi daal di xutba daal di ne yéen mbooloo mi maa ngi leen sant leen gërëm di leen xamal ne dëppoo naa ak ñi nga xam ne ñi ngeen gis nii ñooy kilifa yi gën a am solo ci lislaam ndax ñooy doomu magi saaba yi te it dëppoo naa ak ñoom ci su ma fi jógee ëllëg ñu jaayante ak sama doom Yasid mu nekk seen jiit kon nag yéen ñëpp jaayante leen bi mu waxee loolu mbooloo mi yëpp daal di jaayante te fekk ne mbooloo mi ñoom ci ñee lañ amoon yaakaar ngir jaayante ak ñoom muy kilifa yi nga xam ne ñooy doomu magi saaba yi ci noonu Muawiya nag daal di wàcc ci minbar bi daal di waraat ci aw warwaayam ngir dellu fi nga xam ne mooy Madina bi mu demee Madina ci noonu mbooloo mi daal di dogaale ñi nga xam ne ñooy magi saaba yi nee nañ yéen yéen a waxoon du ngeen jaayante ñoo ñëpp ci yéen lañ wëri woon ngir kuñ ci fal ñu ànd ak yow waaye ngeen seetaan Muawiya def lim def te yéen yéen a waxoon ne du ngeen jaayante ñoom ñu daal di waat ne ñun day mosuñu ànd ak Muawiya moom daf ñoo menacé daal du ñu xamal ne bu ngeen tontoo dañ leen dañ rey looloo waral ñu nangu ko ci noonu la waa Madina gépp daal di jaayante ci forcé Muawiya daal di delluwaat fa nga xam ne mooy Saam. Sen Production Gran est le meilleur site internet islamique au Sénégal.